salaamaaleykum mbokki julli mbokki taalibe ñu ngi lay nuyu di bu baax man na Ndiogou sàll association ànd taxaw sa gox ñu ñëwoon fii ci hôpitalu Ndamatou bi fi dikkee nag am loo xam tim lu fi amoon ñu bëgg koo wax bi askan wi tim dégluwoon tim bu baax a baax ndax bi ñu ñëw dafa am loo xam ne lu ñu taxanu jib lu ñu taxanu ñu jóg ci mooy association bi li ko tax a jóg mooy social moo ko tax a jóg association bi li ko tax a jóg daray politique nekku ci ndax bi di ñëw dañ ne association ànd taxaw sa gox mooy dem soutenir hôpital Ndamaatu yëkkati li ñu am sotti leen sotti euh, jàppale ko ñi nga xam ne ñooy malade ñu dikki nag ñu waxoon ci docteur Soran docteur Soran tamit rafetlu ko ñu jàppale nañu ñoom tamit ci ni ñu war a jàppale ñu yegsi bi ñu yegsee. ñu gis ci loo xam tim ñoo xam ne tey danoo ñëwoon ne dañu jàppale si waaye bi ñu ñëwee ne dañu jàppale si tim dafa mel ni ñoom danoo ñëw pour jël mbir mi akimoo ko jëlaat ko euh, dugal ko ci mbirum politique te association bi politique tax koo jóg te politique tax koo jóg ma jàpp ne na am loo xam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ngir yàlla ak gim Sëñ Tuubaa képp koo xam ne ñun ku nuy jàppale ak ci façon boo nuy jàppale su fekkee ne politique a tax nga nuy jàppale téel sa yëf association bi ànd taxaw sa gox lu tudd day liggéey di soutenir di di jàppale ci mbor problème day dem ci daara yi di dem ci hôpital yi di leen jàppale ñu ko def nag day yëkkat seen alal muy bari muy néew ñu koy teg ba mu xaw bari ñu neen ko jëm ci béréb sàngam ab staff lañ àndal boo xam ne ñoom seen jëm bopp tey ñooy dajale seen alal di ko yóbbu ci hôpital hôpital nag keroog aju bi fi ñëwee dafa am lu fi gis mbokk yoo xam ne tey danoo àndandoo ñun waaye danoo dem ba ci mbir ma demaat ba ci hôpital bu bees ba

dégg nga kon tey bu ñu amee xalaat boobu daane tey nan yëkkati tey ak lu mën a nekk ñu yëkkati ko ñëw jox ko tim yaakaar naa am loo xam tim refitu ñu di ko politique kon loolu loolu laa bëgg ñëpp bàyyi ci xel ñi fi ñëwoon nag naan opposition bi la ndawi opposition bi la bu dee politique nan dem ci si le terrain politique te bañ a politique hôpital bi ki fi nekk ab taalib bi la nekk taalib boo xam ne taalib bu Serigne Touba la dara ñu ko am naa naqar ba fa naqar di ndax li tax ma am naqar ba fa naqar di mooy jàpp naa ne tey bu fekkee ne image hôpital bu ñu ko jëlee ñu dikk ñoom ci jëm bopp ñun ñu dox nañ ci ay jéew yaakaar naa image boobu war na ko jël ak benn image di ko monté ak benn image boo xam ne ñaari image yi méngoowul ndax ñun bi ñu ñëw li ñu wax docteur mooy ñun kat bi ñu ñëw social lañuy dox danoo dajale suñu yëf ñëw di ko jox kon def nañ ma loo xam ne lu ma waaye def nañ loo xam tamit lu metti docteur Souran politique defu ci dindiwu ci dégg kon loolu wax dëgg yàlla naqar nañ ko ñun waa association bi yëpp naqar nañ ko en tant que bi mooy wax ak yéen naqar gi nag am na comment am na commencement waaye amul yemukaay. hôpital bi ngir yàlla ak ministère bu ko ci benn politicien boo xam ne yitte yu ñu amati ak suuna bu ñu benn politicien bu mu ci nekk di saa di ci yëngu politicien boo xam ne ñu jëm si ci hôpital bu ci yëngu tuuti naqar na ma trop nag ñoo ngi jéggul tim nag di jég jéggul jéggul docteur Sonan di jégglu staff bi nga xam ne ñoom la ko seqal ñoo ngi jégglu ñëpp